combat grand combat grand combat grand combat Cheikh Niang Mbour Bombardier moo fi jàkkaarloo Thiatou Kairé Deliphone Molo grand combat grand combat tey le samedi 22 juillet 2023 à la tête de la structure Mousnakh Production moo organisé Mousnakh Production moo organisé L'enfant prodige de, de Balissor, jeune espoir invaincu jusqu'à présent avec un palmarès qui porte le respect. Il en est à 6 combats, 6 victoires, le voici, l'espoir de Balissor. Kadoukere, le poulain de Kalsissé, le voici. Qui doit affronter un adversaire beaucoup plus expérimenté que lui en l'occurrence. Sernian, André Rougier, le voici. Sernian, un ancien fait 20 ans de carrière dans l'arène. Le voici l'expérience de Seignan face à la jeunesse de Tchadou Kéré. Monsieur l'arbitre ne va pas tarder à donner le coup d'envoi du combat. Mesdames et messieurs, aujourd'hui samedi 22 juillet 2023, on est à l'arène nationale de promoteur. Vous êtes nouveau à la tête de la structure. Mousnard Solution est passé par là. Oui, c'est ça, la journée d'aujourd'hui. Porte la signature de la structure Mousnard Solution. Monsieur l'arbitre ne va pas tarder à donner le coup d'envoi sur pause. Thiatou Kairé enseignant premier grand combat pour Thiatou Kairé s'il passe bien à ce défaut de ses noms il devra poursuivre son ascension vers le sommet de l'arène il devra aspirer à affronter des lutteurs beaucoup plus potés que lui supérieur et il a envie de gravir les échelons. Sadio Kéré, l'espoir, c'est un effort poulet de qualité. Face à l'expérience, l'expérience du cousin de Boyan numéroté en l'occurrence, de Boiti Seigneur, cousin de Boyan Tourougou Tourougou, le Boiti, mais c'est la ville vient le courant, on le combat, mais il va le combat, Kairé moo gën a féete ndaw ñu ngi toll ci palmarès de six combats six victoires mësul daanu moom Thiatou Kairé mësul daanu waaw waaw mi ngi bëree nag ak Cheikh Niang Cheikh Niang moo ko ëpp expérience ñaari yoon Cheikh Niang def na ñaar fukki at ci lamb ji moo ëpp expérience kii di Thiatou Kairé ñaari yoon mi koy war war noonu ko bëgg a moo doole waaye dafa mel doole ah Thiatou Kairé dafa mel doole waaw oh, waaw très serein très serein mi ngi dox ci kaw seen ñaaw at bi arrêté na combat bi waa nga en rotation mi ngi wër kii di Thiatou mi ngi ko topp rek na tekk mi ngi ne ko jàpp di ko topp pas à pas pas à pas pas à pas waaw waaw attention Thiatou Kairé attention Thiatou Niang mi ngi noonu ki a daan moo daan ki war a daan moo daan Cheikh Niang daan na ko waaw waaw day kon na ci yoonam Cheikh Niang bu jiitu bu jiitu bu jiitu bu jiitu daan war na la daan ki daan waaw waaw waaw moo war a daan moo war a daan ki moo war a daan sax moo war a daan moo daan moo daan dem oh. na ah Caatu Gaindé dem na dem na Kenya bu Bombardier jël bu rëy bu leer jël boobu dellu werante mi ngi noonu l'enfant de Dalifort il poursuit il poursuit son ascension vers le sommet de la mesdames et messieurs sept combats sept victoires pour Caatu Gaindé sept combats sept victoires pour premier grand combat célébrer aujourd'hui samedi 22 juillet 2023, mesdames et messieurs, on est à l'arène nationale. La journée d'aujourd'hui porte la signature de la structure Mousnar Production, Tchadou Kairé, vainqueur de Ternian. Il en est à 7 combats, 7 victoires, le voici, l'enfant des Alifort. Il devra affronter des adversaires qui se trouvent d'un niveau supérieur. a des arguments à faire valoir ce garçon. Il a des arguments à faire valoir. Il est très fort physiquement, il est très fort techniquement. Le voici, auteur de 7 victoires en 7 combats. 7 combats et 7 victoires hauteur. Hauteur dans sans faute. Palmarès sans jusqu'à présent, Tchadou Le voici, l'enfant de Delivore. Vainqueur. Vainqueur avec la manière de Seigneur. combat bi jeex na Thiatou Kairé daan na daan na Senior